nga ne man de gisuma kan mooy naan nanguwul ñu woote jàmm. nga ne tu as des relations humaines avec Ousmane Sonko. il est en il est en grève de la de la faim ñu bari ay sëriñ euh, ñu bari ñu ngi ñaan mu arrêté grève de la faim bi méngoowul ak diine lu mu wax. Euh, yow lan nga koy wax. mais yow déjà humainement di nga nangu nit nekk kaso xam nga loolu nangu ñaanaloo ko sa noonu sax n'est-ce pas. non yow lan nga koy wax grève moo lan nga koy wax ban message nga koy yónnee. man du ma ci wax. xam nga lu tax nit bu ne ak ni mu xalaatee combat du dëgg nit bu ne dafa am nu mu xalaatee combat am nu mu xalaatee noonu lay sàmmee ak xam ak yelleefam waxuma la ni am na dëgg de man bu ma nekkoon place am nag man sama ay soxna ñaan ma damay bàyyi ndax yaay moo jur te yaay bu ko laajee daa xalaat doom xalaatul jëkkër kese bu boobaa bu ma mënul may politique bu ma mënul parce que aussi xam nga àdduna moo demee noonu léeg-léeg nga wéet ci sa jafe-jafe mais boo amee lu ñuy wooweetee compagnon de misère xam nga sa jabar moo fi nekkoon bu muy métti xam nga bu waxee nga bàyyi da ngay bàyyi du tere nga continuer ak say conviction du tere tamit ñu jàkkaarloo amul problème mais je di que moom na déglu ay soxnaam keroog wax nañ ci moom nañ ko ñaan nañ ko na def lim liñ man de bu dee man la woon ak lu ma déterminé déterminé ah su ma jabar ne bàyyil ma bàyyi